asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen ah maa ngi bëggee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm maa ngi xam nga le 19 yaa daje maar moo tax ma ne ma ne le 19 bee rek jàpp le 19 ba eh, eh, le 19 ñaari bés ñoo ci am mais nag bés bi nga xam ne dafa nekk bés bu marke Sénégal te ñëpp di ci bàyyi xel mooy le 19 juin combat bi war a dox ci diggante Garga numéro 2 bu ca Parcelles Assainies ak Mama Lamine la Tarkinda de Diamaguène Tyson 2 bu Tay Singh bu Ndaayaan ak ki nga xam ne moom mooy Franc ba tey bu Parcelles Assainies alias Biram caatu ngéwél bàyyi ma ñoon siño fourrière bu Grand Yoff loolu mu war a am bu quatre combats yu jàlle am na yeneen combats yu ñu ca tegal ay petit komba ñi taxaw na ngeen gis leen en direct ni xale yi taxaw ci bés boobu ci la ñu war a bëree kii ma jàkkaar lool eh, wala kii ngeen di gis nii moom moo di boîte vocal ah kii moom moo di boîte vocal ak ki nga xam ne nii moom moo di euh, trompeur numéro 2 ñoom defe naa yéen ñaari war a bëri ci bés boobu kii nga xam ne moom mooy Pouy numéro de ah Pouy 2 moom moo war a bëri ak ki nga xam ne ni moom mooy. jingal jingal jingal bu Habib njaay noonu lay demee des na yeneen combat yoo xam ne ci bés boobu day day da ciy am ñu di fas yéene nag jox leen kàddu gi ñoom ñu nuyoo mooy jëkk ci bu at vocal. bu at maa ngi lay ziar. ginnaaw ba ñu sant yàlla jul si leen bëggee di leen bëggee gaa yëpp di bëggee gaa yëpp sama mafia di bëggee ñëpp. yëkkatil micro bi di bëggee gars yëpp ma fi at con si laara garab yi ma ngi bëggee gars yëpp. boîte foo jógee. fii nii nii. yow moom sori boobu. sori man da nga yegg si nekk école de lutte. Père Diaw ah? Mhm. Ah, am na solo nga war a war a bëri kële sa adversaire ma bàyyi ko mu nuyoo trompeur numéro deux maa ngi lay ziar. maa lay delloo ziar wér baa wér. naka yëngu yi. sant yàlla bu baax am nga jaam. am naa jaam ju bëri. yow itam foo jógee. maa jógee Boune. Boune ah. ban écrit nga ne. Kër Massar mbooloo Kër Massar Mboro. looy nuyu ñu lay suivre en direct ci Equivox TV. Mhm. di kontaan si ñoom. Mhm. di macha allah kontaan ci yow. Pouy 2 maa ngi lay ziar Pouy. delloo ziar am nga afiya. sant borom bi. Pouy foo jógee. alhamdulilah xale bi sant Pouy te dëkk Kër Massar la maa ngi jógee ba Kër Massar. Kër Massar nga jógee. bu baax a baax nekk ba nekk di. ressortissant de Fatick. ressortissant de Fatick. boobu du fa mbaytin moo fa ne xaw ma. ah ma koy nuyu mbaytin moom suma waay la maa ngi koy bëggee bu baax a baax looy nuyoo ñu lay suivre ci Equivox TV. alhamdulilah sant bu wér di nuyu sama naataango mbër yi ma fekk si plateau bi. Hmm. comme trompeur ñoo bokk daanaka fi mu jógee. ok waaw sama adversaire. di nuyu boîte vocale di nuyu. yow. Mm-hmm. di nuyu say caméraman di nuyu ñi ma àndal ñëpp Omro mu ngi ci bunt bi ak ma ndeysaan ak mafia bi yaa mafia bi màgg ah. daan bi yëpp màgg daan bi du mën a ñàkk mbër maa lay bëggee yow itam. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw ban sant yàlla julli si bàyyi lay Seydi alayhi salaatu wa salaam. di gërëm suñu ñaari waajur. Mm-hmm. di ñaanal suñu waajur bu jigéen. yàlla yërëm ko jékkal ko xaru ko àjjana di nuyu ñu nekk si plateau yëpp di la nuyu Babacar di nuyu suma mbokk mbëri rawatina fu ma jógee suma papa Abib Ndiaye suma ménagère Matar Ndiaye mhm. di nuyu ñëpp daal rawatina waa école lutte Abib Ndiaye quoi école lutte Abib Ndiaye waaw Abib Ndiaye defe naa ca Pékin la Pékin la école Pékin la mhm. am na solo léegi kon xale yaa ngi noonu présenté wu nañ ku ci nekk xam ngeen écrit bi mu jógee ah li ci des nag mooy ñu dugg ci waxtaan wi waxtaan wi nag xam naa ne lu ñu tënk lay doon parce que heure bi moo ko laaj boîte vocale yow ci yow laay ñaar parce que yow yaa ubbi woon waxtaan wi yow ñaata combat nga bëri si làmb. maa ngi huit combat. yëkkatil sa micro huit victoire kañ nga mujj a bëri. man maa daan Mbacke Faye bu Rock Énergie. Mbacke Faye benn. maa xam Mbacke Faye. maa xulee waxal ak boîte vocale mi mu yaa daan Mbacke Faye. barke alxuraan sama combat yi mujj moom Mbacke Faye ma ma xam ca keppaaru Modou Lo. ok a bëreel. moom laa mujjee bëreel moom laa mujjee daan ci combat ok yow trompeur. waaw baaxul. yow ñaata combat nga def. bi mooy sama sixième sortie. sixième sortie ñaata victoire nga am. quatre victoire la am benn défaite. quatre victoire benn défaite. quatre victoire benn défaite. Ah. kii six victoire deux défaites. xam nga kii. kii. Hmm. xam naa ko nii rek. mosoo koo gis. tey laa koy door a gis. noo ko gisee. waaw comme ni ma gisee yeneen mbëri rek di xaar jour jot rek ma daan ko jël bu. moog adversaire yi nga daan bëreel ban différence nga ci gis. waaw dara comme ni man moom wax dëgg fa ne yàlla du ma sax am combat di xool adversaire l'essentiel daal gëm naa ne su arbitre sifflé. fu mu hmm. taxaw dinaa ko fekk dinaa ko jàpp dinaa ko daan. sama kom ah, day wax lu ko neex lu tax ne day wax lu ko neex. déedéet sa waay amal yar rek maam seer moom xam na ne maam maam kii waaw déglu trompeur waaw dama lay wax waaw taxawal sa place non taxawal sa place non wóyu ma s'il vous plaît dañ leen waaw moo tax dañ leen di maa la bu doole maa mbër non non mbër mbër mbër trompeur trompeur dara sor rek trompeur bàyyi fall daan jël bu rëy wóyu ma waa déglu ma wax la bàyyi fall nga sol un Baye Fall day joxe le bon exemple. la moom. si wax bi voilà parce que ay nit la la ak moom a waxtaan ci mu am ay. excédé te moom mi sax dama xaar daan sax kii nii dama xaar daan. ok voilà déedéet waaye. bu am xaar ko kii ancien la. kañ nga production doon tëgg. Ousin xam naa Ousin. stade Diop ba Mar. waaw bu rëy laa ko daan barki yàlla

moom moo ma wër nombre dama xam maay muuru nombre ba si colu ba si colu ngembale deuxième bi laa a xam nga a ko nangu micro bi ngay si laal kon yow bi du ma sama daan ko ku xool xool xool ma xam ne moom mooy mag yow baaga <laughs> barki alxuraan mbër gu ma paa du am. man daal li ma leen di xamal mooy nit ñaa ngi leen di suivre bu leen fi dóorante bu doole fii moom bu ndaw ay papa laa naan papa waaw papa ay papa laa naan doom daa ndaw doom daa ndaw waaw nga xam ne dara maa def ba dëgg de nel papa def naan ma doom da ay papa laa naan li may lekk doo ko lekk parce waa dégg moom may ma trompeur may ma tuuti si ma lay bëre ma la may ma may ma may ma boîte vocale del wax si micro bi s'il vous plaît del wax si micro bi yow kan ak kan nga daan mën nga maa limbal ñi nga daan Mbacke Faye moom wax nga ma ko xam naa ko Balla 3 Balla 3 dama ko daan waaw billaahi wallaahi taalaahi père du ma kii père du ma yow yow la mu ñu boole lu tax ma jël ko lu tax ma jël ko wax di nga si am wax di nga si am mais bu arbitre sifflé billaahi wallaahi taalaahi nga xam ne lépp mosoo bëri combat bu mais trop peur ko mu daan Caatu Fora laa mujjee daan. juru combat Caatu Fora moom laa mujjee te xoolal may ma la sax ku mujjee xeer naa xam. lu ma neex laa jëli boobu noonu da si dal daax bëri fuuf. jëli boobu da si dal. te bu lépp dina di nga xam ne yow lépp dëgg la barki Seydina Mohamed. Hmm. ni ngay waxee ni boo ko ñëwee combat bi doom ay seconde ma daan. nga daan mais ci côté mbooloo yéen ñaar kan moo public. mobilisation bi rek buun. moo baaxul man buun laay jógee. buun buun laay waa buun yëpp. maa ngi woo waa buun yëpp. bari waa bu sorul arène bi sorowul dañuy dox ñëw. bokk nañu suune ah dañuy dox ñëw. bokk nañu suune bu baaxee amoo doole. Ah. mag nga da ma ñëw léegi. Ah. léegi baax na c'est bon bàyyi leen ma dem fee comme foofu tàng na jër xulle foofu tàng na yàgg maar yow yëkkati sa micro bi puy deux ñii moom raayante wuñu wax nañ daa mel ni daal dégg mbër waaw da ngeen di déglu nag s'il vous plaît gaa yi ngeen di suivre direct déglu leen nag waxtaan ngeen ba pare bàyyi leen ñaar ñii waxtaan nag ndax mbir mi yàpp picc la ku ne da ngay ñam jox sam mm. sa morom mu ñam doonoonu lay def kon xaar leen tuuti ma ñaat si yéen mm. yow puy xam nga kii a trois sortes la dama soufflé dama dama ma doon wax dama lay daan laaj mais dama lay duma ngir yàlla trompeur trompeur nekkatuma ci yéen de gaa ngi leen di suivre ñaata victoire nga def benn victoire journée Assane Ndiago benn victoire rek nga am deux défaites loolu doy na waar di yéeme na ak le 19 troisième bi yéeme na lool kii le le 19 gën a gudd gën a baax kii njool la de fekkee ko si yoon ku ma sun maa la man fekkee boole genn ga fekkee ko boole si fekkee ko boole si yoon bi bu bëree jommi boo xeexee mu waxaaleetu. man ku ma sën maa la man. ñaata combat nga def yow. man bëri naa deux combats. ñaata victoire. benn victoire. ah yéen ñaar ku ne benn victoire nga am. yéen kay daa mel ni too ngeen. tur kii bi mu wax usine production. soo ko woon journée bi mu tëgg man la xam naa ko. 400 litres 400 litres maa ngi bëri final maag LG ba final. kër gi. yaa jël final ba. déggoo ma la 400 litres kii bi muy wax nii. waaw boo woowee usine ko si mu la wax la jëngal ba ak kër Abib Ndiaye journée bi mu tëgg man la njëkk a woo la 14 la mën a préparé da ngay bëriwaat. mais lan mooy jëngal. waaw jëngal tur ba ñu nekkee xale rek la dëkk si goxu làmb Pikine. Pikine waaw suñu grand frère ñëpp di bëri Gibson. waaw Gibson bi ko di booy ñaa xam nga ànd ak ñoom ànd ak gars yi ñoom soog dem entrement géej gi xam nga ba virus bi dugg ñu quoi. nekk si mbappat yi di. laa bëgg a xam li waral tur moom suñu benn grand mu ngi tuddee moom Espagne Ablaye Ba. moo la tuddee jëngal waaw nekkee xale bu doon suba ay tuba ah, yi. nga daan toll ay suba yi jëngal. voilà ay jëngal xew na maar. <laughs> léegi moom yeneen a xew puusal tuuti ne. Mhm. waaw. mais booy bi dégg nga li mu wax ne na fekkee la ci bool te bu bés baa boo bëree job man ku ma sut maa man. ku sut maa man père man ku ma tolloon ma am jafe-jafe dama ko dóor sax mais dama ko dóor déet bu ko dóor fii moom fi moom fii moom waxtaan rek mu neex gaa leen si ah ci biir bu abi soufflé ah, waaw dama waaw waaw ku bëre waaw ku ba jël ah, final day waaw non naas dañoo war a bëre non kii dama bi nga déggee 400 litres non dañuy bëre kii maanaam bu ñu mbabatee maa ko mën foofu koo sut yaa ko ma sut maa la ma moo ma yëg na njool mo kii ndaama yaa ko sut de ñii bu fekkee xam nañ li muy wax ñoom ñi rek Kër Massar ñëpp laa daal Sibor Sibor Sibor benn Sibor sama waaj Sibor Sibor Sibor Kër Massar la bëgg waaw maa ko maa ko daan Kër Massar si Kër Massar ñu fa maa daan Sibor Sibor maa ko daan may moo ma dig jesneer bi Kër Massar amul ku fa nekk daanu ma la. ñoom booy Kër Massar yi dama leen daan sama papa fa la am kër daan ñëw Kër Massar ñëw seet si. waaw noonu la demee kii maa <laughs> kii nag kii nag seen seen ko quartier boobu de. chaque guddi fa. kii yow Pikine nga jóge di fréquenté Kër Massar la fa la fa am ah, kër nag de foo ko am moom kenn mënu la faa génn Abdou Sall. titre foncier la am Musdalifa. waaw génn. kon yow itam mënu laa génn ah, Pikine de. non non mënul nekk. barki seen kon da ngeen a weccoo. <laughs> lu garaaw la neexee fanaan Pikine moo ko neexee fanaan Kër Massar. xam nga lu ma ci métti. waaw <laughs> damay bëri ak moom ba pare nga topp sama combat di ko yuuxu. di ko yuuxu man day ki ay man ku ñu daan jël bu rëy ba mu ah, yuuxu ko. xam naa da wax ji fii na neex de waaye xam naa ne ku ñu fa daan jël bu rëy danga nga dégg lu rëy de. ay ay mbokkam lu ñu koy wax leer na. ah arbitre wàccal mu jëli ko te bu ñëwee ah dañ ko def ah da nga kii sañu taxaw sa kii dinaa ko yor dinaa moom bu dee kii ah. kenn du ko ne taxaw xeex lu mu wax ne loolu lay def ñëw bëri maanaam bu xeexee da du baax si daa see xeex ma ki daa see taxaw di xeex. yoru nga xalaat moom gisee kii daa teg jeexal. bari jàll na ci lëndëf lool. teg na jeexal bu ma sa dara ñëw ma sa ba sama loxo rëkk. di entraîné. mbaa nga wér naa bu a nga ñëw pour ba ko ne adversaire bi mu ne moom. dóor ko bu mu tëdd. Habib Ndiaye dóor dóor ba mu tëdd xam ne ni kor ko dóor ko bu mu tëdd te bu jour ba noonu laa koy def waaw mais woyu ma woyu leen ma léegi côté comme yéen a ngi xëccoo yow ne nga am nga Pikine wàll titre foncé kii am na titre foncé Kër Massar daan na mbëri Kër Massar dimanche <laughs> bi passé dimanche passé nga añee kër ah boo ko daanee ba pare ah fa ngay añee jee biir Kër Massar léegi côté mbooloo mobilisation parce que dañ ca soxla mobilisation bés boobu puy de boo xoolee débém nu mu mettee te ba tey bu jugee gaa yi jóg ay xale yoo xam ne tamit ñii dañuy jàng métier ñii yor nañ ay soxna mais saa bu ma jugee. ñu topp seen lépp nekk ci man man mm. damay toog toog sama rukk di wér di jooy di xalaat comme man ni man lan laa leen defal quoi ba ñu war di ma mun di ma toppee nii affaire boobu des fois. daf may yaay seen champion daf may jaaxal yaay seen mbër nag. te amaana defaguma dara gis nga Kër Massar. ba ci mm. seen naaw bokk naa si mbër yu ba gën a cuune. écurie bi ma nekk bokk naa si mbër yi fa gën a cuune ñu ma dàq bëre dàq ma lépp ñoo nekk sama ginnaaw gëm ma bay fàtte seen bopp. Hmm. kon loolu mbir la. ah. barki Sèye laa la wax billaahi wallaahi wa taala. kon mbooloo daal ay ti mbooloo moom xa hmm, bés booba daanu. bés booba di nga ko noyyee ci mbooloo. non ça bu ma ko noyyee fu mu toog gaa am duñ toog. Babacar Kër Masar. Assane Ndiaye laa mujjee bëreel. Assane Ndiaye laa mujjee bëreel. Bawal production Bawal production. bu dee étudiant daan ko ñaar étudiant Bawol mbooloo daan ko ñaari jël si benn tàkku sax hmm. kii amaana mun na am ñett mais dama koy bañ sono sinon prochaine combat benn rek nga koy jox daal di ko bàyyi naan moo ngi moo ngi yóotu beneen combat moom moo la gën a xam nu mu xam na nu mu demee na action Kër Massar mbooloo mi ne na xam ne waa Bani yi da nga fa dëkk ah, Kër Massar boo ko xoolee léegi def waaw ku ne xam ne arène nationale ñun dañuy dox duñ jël oto waaw ah. lu yëwuñu kaar ji lu yëwuñu super mbër mi day dox suba dañuy dox waaw wax nga dëgg Pikine day yéen arène baa ngi dañuy dox bu ñu yeggee rek arène ba bu ñu paree dañuy doxaat ñibbi ñun ku ne mbooloo moom ñun amuñu problème boobu di si woo Thierno Ndong ba Thierno Ndong toujours dañuy jëndal billet yi bari jox ñu xaalis Isaaxa Diop di si woo waa Pikine ñëpp dina waa ASC jamono waaw di si woo ñëpp xam nga di ñaanal suñu xalifa xalifatul muslimina taifatullahi sidina El Hadj Ba Abdoulaye mën a am lu mën a xew yàlla na fi yàgg taawu mbir di ñaanal suñu Muntaxa Serigne Mbaye Sy Mansour di ko ñaanal kilifa diina yëpp di woo sama mbokk lébu yi mm-hmm. fukki penc ñaar yëpp maa ngi leen di woo fépp fu nekk lébu nekk maa ngi lay uh-huh. waa ñàmbur la maa ngi woo waa Louga gépp képp doomu Louga nekk maa ngi lay woo ñëw jàpp suñu combat bi ak suma waa dëkk maam kër Sambakan uh-huh. di woo waa kër Sambakan nga la dëkk interfoncé la fa am maa ngi woo waa ah, Sëbër <laughs> bu Badiana maa ngi koy a baax mu jàpp si na de waa sax ah. ah, mag la kooku ngi def lu baax lu di woowaat sama beneen mag soxna yàlla ku gërëm su ma mag yëpp a ngi Europe maa ngi woo ñëpp ñu jàpp si ku si mel ne Libaas ak soxnaam Mam saane

non fii sax waxukaay la. waaw waaye kay jëflante ga moom fii moom. jëflante damaa bëgg dafa ñëw pour wax. waaw ñëwuñu pour taxaw mu sedd sax. du sedd de. ay mbër yu yàgg amateur yi nga xam man ak moom du sedd. mbër mu ndaw waru bëri ay jëm dix minutes neuf calcul warut a bëri. Ah, boo ñëwee man lu ma liggéey. waaw xooloo moom lu mu mënee. Ah. ak lu mu jiital man lu ma liggéey. su ma ñëwee loolu laay war ba arbitre bi sifflé defal nii loolu laay def. du ma calculé. bu arbitre bi sifflé fu mu fekk sama yaram waaw maa ngi woo waa Kër Massar yëpp di woo waa Canaba waaw alhamdulilah. maa leen di woo bu baax di leen wax ni. gis naa ñaan yépp yegg si na Seck. maa ngi dem ba Daara Jolof di nuyu sam benn papa. Kaw Moussa maa ngi koy ziar bu baax a baax dafa maa doomoo te yàlla rek tax di daj si man coono bu méttee méttee. te li ma ko ko war a fayee mooy la 19 mai indil ko ndam incha allah di woo waa di woo sama waa Ikri yëpp. mbër yi fa am combat yal na leen suñu borom defal jàmm mbër yi war a bëre si journée le 19 bi yal na leen suñu borom defal jàmm ñoom ñëpp ñu ñëw si jàmm bëre si bis bi si jàmm ku si ndam jig yal na la ko suñu borom may maa ngi woo nag ñu may àndal ñëpp waa mag daan bi waa folotan bàyyi ma kenn fépp fu fan ci club Pouye 2 nekk rek maa ngi lay woo di la wax nga ñëw jàpp si bu baax bis bi sa bis la man xale bu ndaw laa rek damay doog a door waaw te damay soxla itam ku ma yokk doole tamit maa leen di woo bu baax ñu ñëw yokk ma doole incha allah le jour yi ñaan na ñëpp jàpp suma suma soxna maa suma soxna suma soxna suma maa ngi koy gërëm bu baax kon am nga ah, soxna waaw waaw waaw loolu na solo waaw baax na ci mbër kon kontaan naa si yéen ñaar ñooñu ah léegi kon ma jeexale ci sama gars yi yow xaaral ma jox la micro bi nga tàggoo looy tàggoo yow euh, boîte vocale may tàggoo muy may waa grand yi yëpp ah. teel dem esat ma jàpp booy bii hmm. dóor ko daan ko dem ñibbi ñu duñu yàggal. loolu ngay wax daal wax rek wax dëgg si am non bàyyi ko mu tàggoo bu paree nga toog nga toog ñu ma mus a bëreel ñëpp xam nañu bu baax. doo fa leewaatoo dem leen dix minutes man man lu lu yomb. Hmm. lu yomb ku mu ku mu dugal si man. waaw kon ma xam ne mooy loolu lu tàng jër lu metti moo fi nekk barki yonente barki alxuraan. billaay walaay lu metti moo fi nekk. rawal barki rasuulaay hmm. Baye Sall Fass. wax dëgg yàlla metti Pape Robo dañu metti barki yonente yàlla Mohamed ay champion laa bëre. doo dërëm kon billaahi walaahi toog talaahi mm. combat boobu noonu yàlla xam na ne. si mm. kàttanu yàlla. Mm. na waa Grand F yëpp. bare daanaka fi mbër te wax na la nga lim ñi nga daan mais waxu ko ñi nga ñi nga daan. déglu ko déglu ko mbër trompeur ba ko mu wax. bàyyi ko mu wax mm-hmm. daan ko ñibbisi. Mm-hmm. mooy loolu noonu. di bëgg nag waa Grand Yoff ñëpp ku si mel ni Pamo Diop Badara mhm. waa Grand Yoff euh, ma famille papi mhm. euh, Badara ak Zo waaw waa Grand Yoff Puy Ëppin Ndio mhm. Branson Senzala Senzala ñëpp mafia bi Pichon si bi ñëpp nañu ñëw waa téeroo bi kontaan ci yow di bëgg sama gaayu euh, ku si mel ni tamit kii Bébé Seye. Bébé Seye moom moom mooy loolu noonu moom tamit nañoo jàpp si combat bi combat bi combat am na solo ma gën a xam. kontaan ci yow dem Esat. jaajëf jàpp ko daan ko dem ñibbi. Agassa am na solo looy tàggoo mbër. andi micro bi. man damay woote quoi. waaw. taxaw taxaw taxaw maa woo képp kuy bëgg trompeur numéro 2. Mhm. Abdourahmane lay maa ngi lay woo si bés bi. Mhm. jàpp si bu baax. Mhm. Père Moussa Baye si jàpp. yokkal cere doole ñaax. le 19 ma jaaxu boîte vocale daan ko jël bu rëy. di woo sama waa mafia bi dooleel trompeur bi maa si woo ñëpp waaw di lu seen taxawaay si bés bi waaw daanaka daal bës ba la ñuy xaar rek suñu borom defal ñu jaamu ñu jaab baat bu xaal daanaka du ñu neex dama ne woon du ma ko duma dama xëy daan ñëw rek daan ko mais day ñam ba pare soog a daan di sant sama doomu nday Mor Kalso sama grand frère su ma xewlee ñëpp ay bàyyi seen lépp ñëw billaahi ak sama grand baa maxu mm-hmm. maa woo si bés bi di kontaan si moom di wax di bëggee sama copain Aara Mbay mm-hmm. sama waay la mm-hmm. billaahi maa ngi koy bëggee bu baax bu baax mm-hmm. di bëggee sama tons mm-hmm. Adama Diop mm-hmm. sama waa asos maa ngi di woo si bës bi boo xëyee ne ah. di woo waa buun yëpp bàyyiwuma kenn ku ma limul rek amaa juum ko waa way di si woo sama papa di si woo sama yaay yaaga leen si jàpp tamit waaw nañ jàpp si suuf rek yëngal leen si kaw rek ma yëngali suuf bu leen ragal dara kontaan ci yéen 19 combat bi do am one minute ma daan ko kontaan naa ci yéen jaajëf am na solo kon gars bi Euh, dañ may dugalal xam naa yeneen ñaari adversaire parce que ñii moom. am nañ droit wàcc xulle waaw bu la neexee. bisu la 19 boobu yaakaar naa ne tamit am na yeneen ñaari xale yoo xam ne ñu ngi nii taxaw jàkkaarloo face à face la def comme ni ngeen ko xamee le 19 lay am rek arène nationale ak Vox Arena comme ni ngeen ko xamee mbër maa ngi lay ziar. ñu ngi lay dolli ziar. am nga jàmm. jàmm gu bëree bëri. mbër foo jógee. maa ngi jógee Kër Mbaye Fall. Kër Mbaye Fall. waaw nekk si ban écurie. écurie ma Mandiaye. Baye Mandiaye Kër Massar. Kër Mbaye euh, Fall Kër Mbaye Fall dimanche. waaw naka waa Kër Mbaye Fall. ñëpp ñu ngi si jàmm. ñu ñu ngi am affaire bu bëree akasa tur bi la jamalaay jamalaay waaw jàmmalaay macha allah mhm. jàmmalaay muy nuyu waa jàmmalaay yoo ak ëllu Laayeen gi yëpp. Mhm. champion bi maa ngi lay bëggee. waaye maa ngi lay sant yaa ngi si jàmm. sant yàlla bu baax foo jógee yow. maa ngi jóge ba Fatick. Ah, yow jóge nga fu xaw a sori dëkku monsieur le président Macky Sall. Mhm. ah dëkku monsieur le ministre des suñu waa ji Matar Ba. dëkkam nga jóge. dëkkam laa jóge am na solo maa ngi lay bëggee. maa ngi lay sant baax naka yëngu yi. sant la. Euh, petit avion. petit. avion petit avion. waaw kooku xanaa jet privé la. yàgg na am na solo mbër léegi looy nuyoo yow tamit euh, ñi lay siif. maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp. Mhm. di nuyu ñu fi teew ñëpp. di mhm. nuyu sama adversaire di fi nuyu mbër yi fi jóge léegi. Mhm. di nuyu tamit euh, ki ma indi muy Diop. di nuyu tamit ki nga xamante ne ni moom moo ma jox li ma indi muy mbokk mel mi. maa ngi leen di siyaar. di leen jaajëfal bu baax a baax. gis naa seen taxawaay bu baax a baax uh-huh. rat doll nag mbokk mel ni mi ñu naan ko luur baay luur luur baay luur waaw di fa di sant famille kaneen yëpp uh-huh. ñu ngi leen di siyaar di leen jaajëfal di leen ndokkeel bu baax a baax di sant tamit fa ma jógee cité pénitence croisement ñàgg uh-huh. di sant ñoom Masamba ñoom Diouf ñoom si laa sama gars yëpp bàyyi ma kenn di sant waa Diamaguène bu baax. Diamaguène falaa juddoo falaa yaroo. ah Diamaguène nga juddoo. waaw falaa juddoo falaa yaroo di sant ñoom ñëpp. di leen sant bu baax di leen gërëm. Mhm. di leen xamal ne gëj a gise bi nag du dara. Mhm. làmb la rek. Mhm. waaw moo tax ñu gën a gisee du la leen. am na solo petit avion yow itam looy nu ooy père maa ngi sant ñëpp di ziar ñëpp wax sama supporters yi tamit euh, bés bi lañ doon. xaar ah. yegg si na. waaw le 19. le 19 yegg si na de waaw. waaw di ziar ñëpp di woo ñëpp daal ñu jàpp ci combat bi. petit avion. waaw fogole séeréer maxey simnanu waaw fogole séeréer maxey simnanu avion gen Fatick mhm. i village Dongoy à cinq kilomètres Fatick waaw mhm. maa ngi woo ñëpp daal ñu jàpp ci combat bi Rock Energy laa ne waaw ah, maa ngi Rock Energy yàgg na maa ngi mhm. mais dama demoon dëkk ba quoi yaa ngi dëkk ba fan yi waaw Modou moom mu ngi fi. mu ngi si jàmm mu ngi si jàmm bu baax. naka Rock Énergie yéen ngi yëngu du yëngu. baax a baax waaw. Mhm. xam nga kii. non xamuma ko nag. yaa ngi koy door a gis. c'est la première fois waaw. ah loolu wóor na jël avance te xamoo. non man père aw ma lu may ragal. Hmm. déedéet. mës nga bëri arène. non non. c'est la première fois may bëri arène. mais bëri naa combat fële Fatick. Fatick bëri naa fa quatre combats. Hmm. waaw ay combats nommé wala li. ay lu simple mais bëri naa bëri bëree dóor Fatick. tournoi tournoi. waaw jël naa si ay nag. ay nag. war na rasulullah. Ah. Mhm. li simple bi tamit yaa ngi ci di wane sa bopp. bu baax yàggul dara terrain gaal gi bii rek. Ah. c'est que nu mu demee la rek. ci léger bi yaa ngi bind ci léger léger yëpp ay demi-finale laa ñàkk. demi-finale ba ci moo ma daan foofu. dimanche passé. dimanche demi-finale bi. kon kay yow mbir mu am compétition. yàgg na damaa compétir ba yàqu. Ah. ragaluma loolu. kon kii maanaam boo ko séenee nii du amoo ci moom. genn jaaxal loolu affaire bi loolu. <laughs> déedéet waaw mbër muy compétir di bëri li simple chaque jour. waay chaque dimanche chaque weekend yaa ngi takk ngemb li. yàgg na seetaan ma. seetaan ma seetaan la le 19. dugal youtube nga seetaan ma. ma seetaan côté avion. parce que rasulullah. mën ngaa bëree lool. ponkal yëpp dade nañ. yan ponkal. ñoom Ibou Ndiaye sax. bëri nañ obali obali. Ah. nañ terrain gaal gi mu génnee ma point. point la mën a. barke rasulullah bu ñu génnee ma jox la vidéo bi. waaw loolu kay faw jox ma ko. barke loolu doy na war di óbbali bu joof yor. le 15 février la. bi passé. caaka moo ko jëloon. caaka fay. caaka fay moo ko jëloon. waaw. waaw. loolu maa nga fa sax février passé. boobu damaa ñëw ci tànk yi ñu baare. ñu baare. waaw nga ne naa di dugg ci luur bi. waaw bëre bëre la drapeau du dix. lamb du dix. baadu. da ngay gëm sa bopp rek te man damaa nekk xale bu gëm boppam. bu wóolu li ngay def am fit. am fit yàgg na. Hmm. barke alhamdulilah. kii de nëbbu la nëbbu la boppam. fa mu dëkk maa ko toj. fu mu dëkk Fatick. nguy ah man Fatick laa dëkk. kon mu ko man Fatick laa dëkk foofu boo taxawee laajte jàmmalaay yàlla ko ñu xam nañ ko bu baax. jàmmalaay yàlla kobale. yàlla kobale amul ku ma xamul. looloo neex. foofu maa ko toj maa toj Siin toj Saalum toj ba ak Kajoor. déedéet nag yi muy wax nii. Ah. ëppale wu may nag loolu leer na ma. yow ngay nag. barki maam Serafal. bi moo yaakaar man mbuuma laa dëkk. fan mbuuma mbuuma waaw mbuuma fu mu ne mbuuma mu ngi Fatick boo ñëwee ba Fatick soo laajee mbuuma dinañ la ne mbuumaa ngi nii Jakarta ngay jël fay mille francs mu yóbbu la père xam nga mbuuma kii xam na ma barke rasulullah na wax sa diggante yàlla na xam na bu baax xam nga te mbañ muy wax noonu jël naa seen nag daaw paas daaw man maa jël nagam seen nag waaw moom mii kii xam na ma xam na ma man maa ko xamul xam na ma yow xam nga booy bi man dama toj voilà eh, eh, mais yow mi xam nga boo beneen ndekete non weddiwuma tojul mais xam na ma mais yow xam nga ah. boo déggoo turu peut être yow mi kon baax a baax dégg nga turam am na daa mel ne mais man tam ma koy waaw lu ma xam la man tamit lu ma jëf la ma dund la lu ma gis la lu ma jëfe la lu nit yi xam la nit ku nekk nag yaa xam sa bopp waaw nit ku nekk yàlla ko bale mi yow déggoo turam bu mag bi laa xam ñaar la mag am bu ndaw kii bu ndaw bi lay woote mais bu mag moom doj na fi xam nañ ko mais kii tojut fenn pour non kii xawma ko barke rasulullah sama diggante lay wax na maa ngi dem maa ngi bëri nañ ay ñoom maamu jongoloor kii war na xam maamu jongoloor bu ma ko bu bu ay 7 kilomètres soriwu ma man daan daan naa mu ñëw final auto Grand Yoff ma li ma lay wax lu leer ah mais tojul Dakar ñëw Dakar waaw jour boo ma toj la yow Zurba. Ah, mais kon yéen gars yi. naa la jàngal bëre le 19 combat bi le 19 naa la jàngal bëre nii lay demee. non bëre kay bu doon bu doon waxee nguy. waaw bu mu waxee nguy sama xol dafa sedd. bëre kay bu doon ay diplôme ay njoolo nguy ma bokk heure bi maay sama doctorat fii sax xam nga njoolo nguy yow. njool kii njool nga may wax. njool ñoo bokk dëkk suñ kër yi fii ak fii la rek soriñte wuñ dara. kon kii yow xam na la de. xam na bu baax déggoo li ma la. ñool boobu muy ñool boobu muy wax ñool boobu muy wax day toj ba ni muy bàyyi làmb. mais xam gi mu la xam la. Ndiolo Ngouye Ndiolo Ngouye champion la bu mag sax. champion mag la. man amu fu ma bëriwut du ñaaxar du yëngale du yëngale un du yëngale deux yaa may waaw ah waaw. man bëri yëpp laa def. mais est-ce que mu ngi jël farab damay def simple damay def farab. jur ba ba ngay jàpp Jurbel ba ba ngay jàpp Touba. Ah, côté Jurbel boobu du door du bëri dóor la fa. fépp dóor la rek laa fay def. nag bi mu mujjee jël boobu général Malika moo jël poids lourd ñu ngi ne woon cent quinze lutteurs. Diourbel Diou non non Diané. Diané dëkk bu ñuy wax Diané. Diané Poudaay dafa am Diané marché am. jaane marché bi la nag. waaw moo la man foofu yëpp dama fa samp sama béjjën. barke Rasulullah général Malika mu ngi may dégg. waaw poids lourd yow moo ko jëloon. moo jël lourd ba xam na mu baax. général nga jël lese ba yow. waaw xam nga moom dafa ne moom nga seetaan ko boobaa nga seetaan gisuma combat bu dàq combat boobu. dinaa ko won ñaar ñi kay non bëre kenn du ma ko jàngal waaw man tamit kenn du ma jàngal ñoom fëgala deux fëgala deux ado te te mu tukki waaw xam naa ñoo ko doon ñoo nekkoon ci rang bi waaw fëgala deux laa xam kon man làmb amul leneen loo xamante dañ ma ciy jàngal am na lu ma ci bëri am na lu bëri lu ma ci xam ah, xëy nag waaw jamono pexe bu dul dogalam ñaata combat nga def arène maa ngi doog am combat arène si ñaar bi laa nekkoon di bëre kon yéen ñaar daal ku ne yéen a ngi door a bëri ñu ngi doog a bëri bés ba kan mooy xaar bés ba moom day xaar non man du ma xaar waaw ay woo barki rasulaay du ma waaw baax na baax na ba bés ba li may liggéey li ma liggéey rek laa lay wax waaw man tam li ma liggéey rek li nga liggéey xam ne yaa jàpp yaa yaa dàq bëri kii yow yaa ko bale bi yaa ko dàq bëri rasulaay aller retour foofu déet kaamil bu ñu ko tegoon fii moo at ko billaa wala yaa ko dàq bëri daan yomb ma de daan ma <laughs> kii du nelawati barki rasulullah déggoo la ma per kii xam na bu baax a baax ba booba xam naa bu ma gisee ni ma fële nii sax barki rasul am na lu dem si moom ñëwaat bés bu jotee moom dina nelaw wala ma ñàkk a nelaw te lu leer na parce que zone bi muy wax noonu noonu waaw mun naa la mun na la koo kontel laa la wax waaw may mbapat poussière ba nii waaw kan jëlu fa drap parce que euh, Mbella Kajaw Mbella Kajaw xam nga Mbella Kajaw dégg nga bu baax euh, mbuuma mi muy wax mbuuma mbuuma waaw mbuuma ak fii nii euh, euh, fi ñu koy waxati sax dëkk bi waxal xam nga ko fàttali jox ma tur bi rek kii dëkkam dama ko raatal jox ma tur bi rek kii dama raatal dëkkam ba toog kii mënumaa jomal non parce que kii ban drapeau la jël léegi fan nga mus a jël si nguy man région de nguy waaw région de Fatick fan nga mus a jël région de Fatick waaw jël naa mbuuma waaw mbuuma sa dëkk la foofu dañ jàppale tirage yi dañ lay rek mbuuma man sama dëkku yaay la waaw sama dëkk papa laa njëkk a lekk. léegi ak sama dëkk papa laa jóge fii dem boobu saxoo ma ni bëre dama ñëw takk sama ngeen bëre ñëw jël cent mille francs ak fan. ñëw dëkk lekk sama dëkk yaay ñëw lekk. yow yow nga ay nag nii. barki maam Seera Fall. ci lit simple bi. billaahi wallaahi sant yàlla dama ci takk dama simple dama ci takk nag faraab dama ci takk nag. yow yow kay nag yow. kan yow. loolu kay wax ngeen wax. baax na bés ba ñu xam lépp. xam na ko wax ko laaj bés ba ma mu jeejee rek ñëw bu jigéen la. waaw. Hmm, bu jigéen. léegi mu déggoo li ma la nangul naa ko sàmp yoon mais dinaa ko xamal ne ko sàmp loo nekk nekk ndaanaan gis ku la gën a doon ndaanaan naa la may nag déggoo li ma la nag waay loo nekk nekk ndaanaan nekk ndaanaan gis ku la gën a doon ndaanaan côté avion dig na ma nag gars yi yàgg na la maa la koy jox maa la ko wax ma la jox nag mais man la 19 waaw maay borom déet daan man ah. man mbër sa maa ko moom wax ji yomb na fii waxukaay la xam nga wax nga ko fii waxukaay la quoi waaw waxukaay la ah, mais jëfukaay bi la bu ñu demee arène jëfukaay bi ni nga xam ne lépp dëgg la yéen ñaar ñëpp a ngi ñàq de di nga xam ne xorom dis na doole la nag damaa liggéey de yaa compétir ma tax a def nii sax. waaw ñun de liggéey wuñu compétir moo ma tax a wàcc nii damaa compétir ba tax kii ma gis kanam gi xoosu nii wala dañuy nelaw dañuy ah, nelaw kii mbër mbër kii la rek mbëru kii xam boo gisee nga xam ne du bërekat gis nga mbëru bërekat dëgg du xoos parce que man ay jàppante ak yooyu noonu nii nii ah. déet naa la daante du ma la jàpp waaw baax na barke ah, rasul ba bés ba koy daante jàpp ko noo koy doo koy jàngal bëre nag kii xam na man lay jéem a jàngal bëre naa jàngal bëre contraire bi man maa la ko wax dinaa toogaat si plateau bi ne la kii neew naa la naa ko jàngal bëre xale du xale du jàggee ci man yéeg. am ah. waaw maa la wax lii. Hmm, doo guy gu daara kenn baadu déedéet man mbër sa rek bu bés baa dina xam ne ko la. am na solo kon gars yi du ndaanaan day soob rek yàgg maar daa mel ni combat bi nar naa combat bi dina ne ah trop bi mooy alaa daw bi man mooy sama combat bi daw trop na waaw maa ngi loo bokk fañ jógee ah. waaw diggante yàlla kobale mii ak ki nga xam ne nii mooy petit avion moom petit avion moom xaw ma jet privé la xaw ma bu mu ci mën a doon. petit avion la xamoo lan moo tax ñu ma koy woowee. lu tax ñu lay woowee petit avion. ramasse bu metti rek lu ñu teg ma jël lu ñu teg ma yóbbu. maanaam ramasser rek billaay. mais doo ramasser lu ñu teg nga ramasser. chef lañ ma doon woowee deuxième tour bi chef la. chef barke rasulullah. ndax fu gaa yi taxaw nga ñëw ne ca kanam. billaay. boobu doyatul ñu ne la petit avion. waaw yow déggoo li ma la wax foofu mayoo ma fa dara gaa yu bëri maa leen dàq foofu gars yu bëri yaa ci côté man maa lay man maa lay dàq la non non déedéet lu leer sama dëkk boo ma fa fekkee ma ree lan foofu dama baax na ba ma fekk la sa dëkk dinaa ñëw ba sa dëkk dal ngeen di bëree ba pare am na solo le 19 lay doon kon combat bi wane na boppam kon daal waa Vox Arena macha allah li ngeen nar a indi le 19 xam naa ko doon xaar combat yu mag ya defe naa boo gisee mbër yu ndaw yi li ñuy diggoonte ak li ñuy waxante moo lay wane le 19 kon nar naa xat nar naa metti ah, du mën a ñàkk looy tàggoo man lu may tàggoo mooy maa ngi ziar sant ñëpp di gërëm léegi di woo supporters yi ñëpp nag ñu jàpp ci combat bi. Hmm. waaw ñëpp waa ci côté supporters yi la mbooloo mi kan mooy ëppale mbooloo yéen ñaar. mbooloo bi kii mënuma ëppale mbooloo nag. ba bés ba. Hmm. xam nga loolu sax kii mënuma ëpp kii siwul gars yi xamuñ ko. waaw kenn xamu ko gis nga combat bi. yow mi ngi la am yi di naan nañ la jàpp ba kon fi mu ne xaalis baa ngi dugg lu leer gaa yaa ngi jënd gaa yaa ngi commencé di participer te instant yi dara xewagul dara xewagul waaw kon le 19 dina metti looy tàggatoo léegi euh, maa ngi euh, maa ngi woo ñëpp ci bés ba hmm. waaw le 19 waaw le 19 waa Simal waa Nguy hmm. waa Fatick hmm. su ma limee sax juum waa Mbam lépp Mbam yëpp maa ngi woo ñëpp sama supporter yëpp laay woo xam nga sama supporter yi mooy loolu duñ tiit ragaluñ loolu dëgg la lii defuñ ko combat sax. xam nga corona bi la rek. Hmm. ak dañ bu neexul waaw mooy loolu. dépense laay wut si moom. dépense kese dépense man kenn si man dépense. Hmm. dépense laay wut. du ma parce que instant bi affaire bi daa a a dëgër ngi noonu. bu dëgëree rek nga ci foo ko wutee. mais bu ma fokk rek bu ma fokk mu dëgër rek mu ko dugg. bi dañ ko assuré bilaay léegi loolu waxoon ak su arena. waaye di leen sant di leen gërëm bu baax ne leen seen taxawaay rafet na. macha allah merci leen ñaanal nag ñu yàgg fi te wër trop. merci beaucoup waaw jërëjëf. jërëjëf looy tàggoo yàlla Kobale. waaw li ñuy tàggoo mooy maanaam ñu ngi sant ñu jàpp ci combat bi yëpp. li ko dalee Diouroup Ndoundour Diouroup Pakop Diouroup Mbarjeem. jàpp Fatick Mbuuma Ndep Mbuuma Mbaak Mbino Mbañ <laughs> Diop. ay bii ko Maronem. waaw Jagle Mbaaman Toog jëm ba sama dëkk di Njëmu. jëm Njëm Tan. waaw <laughs> ah. jàpp ba Ñaaxar. jóge fa dem Njàmbur. di sant nag sama benn garaa te mu dëkk. bu ñu ko waxatee Tamba Ibra. Mhm. gis naa jàppaleem bu baax. wax dëgg fa yàlla gis naa jàppaleen bu baax a baax. Mhm. di sant waa Zowal. Zowal waaw di sant waa Marsulu Mar Faafako. Mar Looj Mar Looj waaw di sant Ndangaan. Ndangaan waaw di leen sant bu baax. wax dëgg jàpp nañ ci combat bu baax a baax. ñu ngi participer bu baax. di sant ñëpp di gërëm ñëpp. di mhm. sant waa jàmmagoon bu baax a baax. jàmmagoon am seen fay. balaa njëkk a takkee ngemb.

kii. mbot da ko ko laaj ab genn a jaaxle. xamal la jaaxle nga. loolu kañ maa la ko leer nag laa lay wax di sant ñoom di sant ñoom mbokk mel mi. di sant ñoom abokan. waaw di sant ñoom zootechnique.

waaw kasa noonu la demee kon gars yi gis ngeen loolu mooy li nga xam ne ni bokk na ci li war a am le 19. combat yi ngeen fi gis léegi mu ñu ñu ñu jot fi jaar xale fi jot a jaar ak ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo fi mujje kon le 19 daal insha allahu rabbi li ñuy ñaan yàlla yàlla nañ ko fekkee te tal ko barke yonent bi sallallahu alayhi mhm. mhm. la boo xam ne ci làmb mhm. wàllam yëpp d'accord nañ ne bés boobu combat yi si am amul làmb ju ko dàq ndax làmb ju Franc ak Tyson di bëri combat boobu ñëpp ko bëgg na tëgg mais yàlla nag dafa dogal ne ci loxoy Vox Arena la mujj loolu la yàlla dogal a Vox Arena nekkal ko alias Birame Thiatou Ngewel bàyyi mu yoon junior ak nga xam ne moom mooy frère bu Grand Yoff waaye bu ngeen gisee xale yi fi jaar toog wax ngeen dégg li ñu waxante ñoom itam daa mel ni rek la ne ca mag ña wala la mag ña bëgg lu ko raw la ñu bëgg ndax nag ay xale yu ndaw lañ te am nañ fu ñu bëgg a dem kon gars yi dañ leen di jox dig daje rek incha allahu rabbi beneen yoon ak yeneen i affaire ci làmb ak Babacar ak Vox Arena ba ci Equivox du mën a ñàkk di remercier nekkoon si ginnaaw yépp directeur de production maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax di nuyu Yagamaar taalibi Cheikh Salim Cheikh Béthio di nuyu Xulle ah taalibi Baye Niass maa ngi koy bëggee bu baax a baax waaye di nuyu tamit Abdou Saliw sama rakk ji moom itam kenn du moom maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax Abdou Saliw mu Serigne Saliw Mbàkke nga xam ne moom tamit macha allah des fois ngeen gis su ma fi nekkulee sax mu dem assurer liggéey bi te itam macha allah comme li may wax rek talent yàllaa koy maye te yàlla may na ko talent te moom du loo xam ne nii la ñuy kii la déedéet yàlla mooy def yow lii ne ci yow mu ne ci yow kon Abdou tamit di ngeen ko gis ak Babacar ah ci yeneen affaire ci làmb du mën a ñàkk parce que tamit am na lu ne ci moom te loolu faw mu feeñ te yaakaar naa ne showbiz bi mën na koo feeñal waaye pour man mu gaaw feeñ dëgg dëgg dëgg ngeen découvrir ko ci Abdou Saliou ci làmb lay doon parce que làmb bindoo ni tama te ku bindoo ni tama yàgg maar faw ñu tëggale ñaari boor di leen jox dig daje beneen yoon incha allah rabbi